bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa guddik tey gi mooy fukkeelu guddi ak ñett ci koor gi naafile gi tey di ñaari rakka rakka bu ne fatiha benn yoon xul wallahu adun juróomi yoon yomb na lool ñaari rakka rakka bu ne fatiha benn yoon xul huwallaahu ahadun juróomi yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.